Vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net. Alfaïda, c'est la référence. jàngeen euh, jëfati ngeen ñuy toppandi ci juróom ñeen fukk yu tombal euh, benn kaddu gi di àddoo fii ci Medina Baye ngeen ñuy teewloo ci ay gox yu wuute te fasantikoo mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ceetu tu xabaar yi ci kàllaame ko ci yàttal bu ngeen taaxiloo tuuti rek ma jukki leen li ci gën a fës. bokk nu ci li gën a fës ci xibaar yi wàllum njàng ak ak euh, njàngale université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass nag jamono ji ay jafe dëgg rek lay jànkoonteel foo laal métti administration bu sooxe jàngalekat yu doyul boole ko gi tamit nag li mu ndongo yu jéggi dayoo te moo ne day ay salle de cours yu doy sax amu fa dañ ca dégg Cheikh Babacar Dieng ci njëlbeenu ak xibaar yi artisan yi ci Kaolack yëpp nag nekk nañu benn bopp topp ci ginnaaw alaaji seeni sekk may seenu ko njiit lépp rek nag ngir jàppal tànk Mouhamed Ndiaye Rahma ak Pape Mademba bi tey amal nañu ab ndaje ba joxante loxo dañ ca dégg Cheikh Tidiane Diagne ci leexal jaaree ko ci lëngoo gu dox ci secteur privé beek public bi nees mën a def nag ba suqali wàllum industrie ci Sénégal rawatina ci diwaan bi yi ponk bu ni mel nag moo doon solo sa ndaje ba waa APROSI doon amal ca fika bu Kaolack waaye tamit nag pexe ya ñu war a ngir àgg foofee loolu lépp daañu ko yaatal ci biir xibaar yi bu ñu lépp yemee mbokk yi daañu ca teg xabaaru bitim réew ak Cheikh Tidiane Sarr xabaaru waa tàggat yaram ak Serigne Moussa Kane li yéene kaay yi xëyatee ji la mbiram El Hadji Oumar Cissé lay doon mu nekk li gën a fës nes kiis ñu yaatal moo nekk ci waxukaay gi fegoo ci El Hadji Libaas Mbay ci wàllum xarale gi kaddu gi di àddoo fii ci studio Aliou Momar Lo taaxum kaw ma ñu duppee Cheikh Imam Assane Cissé dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu doore ko nag ak nañu leen ko euh, junjee ci wàllum njàng ak njàngale université Sine Saloum bu Kaolack bi nag jamono ji dafa mel ni ki rek yaram mu màgget ndax nag foo laal day métti amuñu barab bu ñu moomal seen ak bopp administration ba sooxe li mu ndongo yu jéggi dayoo jàngalekat ya néew lool ba tax na sax ñoom jàngalekat yooyu nag bankoon seen i loxo dégg leen Cheikh Babacar Dieng. ñaari fan a ngi nii dañoo gàntaloon jox xam-xam étudiants yi ñoom jàngalekat yi nekkee ci université Sine Saloum bi ñu duppee Alaaji Ibrahima Niass Baye ñu ne li ñu dund dafa métti li ñu nekkee naqari lool moo taxit ñi artu nguur gi na ko at mu bees mi ñuy jëm fas yéene wuñ jël benn étudiant bu bees ci université bi nekkee ci Kaolack Cheikh Atab Mané moom la dénk lépp luy revendication ci SAES bànqaas yu féetewoo ci université Sine Saloum. premier

préparé rentrée buy ñëw daara ju mag ji nga xam ne mu ngi ci digg réew mi ay at a ngi nii kilifa yi di wax ne daañu yokku lim bi ci tabax yi yokku limu jàngalekat yi waaye loolu ba tey ji la dara amu ci lii la syndicat bi ëmb jàngalekat yi daara ju mag ji ne day na sëkk liñ am ci étudiant xamuñ sax nuñ koy def ba nguur gi naa ca yokku leneen ñëwoon ngeen fii mois passé yi étudiants yi doon grève te benn ci seen point yi mooy augmentation du budget donc ministre bi am lenteur ci exécution budget bi parce que tout simplement marché amu ci marché yëpp a taxaw te xamuñu lu ko waral autorité baa ngi ni du toog kenn gisu ko fu mu toll nii boo dugaloon dossier déposé sax foo nga yónnee ko léeg ba Dakar te loolu la ñaawlu bëgg nañu nga xam ne daf fiy toog jàppale ñu ndax ñun dañoo bëgg université bi dox ñu ne it ana nekk li fay dig leen ne daañu yokku li mu jàngalekat yi waaye ñoom ñi fi jotaguma nekk loolu sax théâtre lañ ko tuddee ñu ne université bii daal dara

est-ce que moo mën a laaj benn un million ñu tegal lu ko ci amul sens benn compétence la usine am mooy fay salaire ak seen émission lu ci def lépp luy marché ak leneen ça ne marche daara jom ak bu ngeen fàttale ko coowet yële ci ginnaaw bi étudiants yi doon gerew seen taax nekkee ci quartier Sing ci commune Kaolack lu ci ëpp dañ ko yàqate woon waaye bu ñu fi mujjee dem nii démb ak seetlu wane na defaraat nañu ko Cheikh Babacar Dieng ci a méttee ci nag i du ñu mën a faju ate loole nag dara waralu ko lu dul ñàkk prise en charge médicale Cheikh Atap Mané chargé des revendications mi ngi ci micro Cheikh Babacar Dieng te yaakaar naa il faut ñu wut ay solution par rapport à ça kon moo tax ñun dañuy interpeller directement recteur bi pour moom mu jël ay disposition pour mën a jàppale enseignants yi parce que ñun dañoo bëgg université bi dox tey mu ngi nii même ay problème heure complémentaire yëpp a ngi ci parce que on fait au delà ci lu ñuy xaar suñu heure statutaire dañ koy dépasser de large loolu yëpp pour bëgg mu dox fu mu toll nii nag sonn nañ nag moo tax fu mu toll nii on demande à l' autorité mu jël ay disposition par rapport à ça nga ne tamit chantier tamit dafa arrêté dafa arrêté chantier dafa taxaw ci Kaffrine ak ci Fatick chantier dafa taxaw te xamuñu lu mu doon depuis boobu ba léegi chantier dafa taxaw dara dematu fa amul dara foofu te boo demee ci façade bi rek moo am benn bâtiment bu ñu kuule rek yëkkati ci ginnaaw boo fa duggee da ngay ce qui montre en réalité un manque de volonté par rapport ak université bi war a mën a taxaw te autorité bi chaque année mu àndil ñu ay des milliers des milliers pour ñu mën leen jël en charge donc yaakaar naa ni loolu yëpp bu ci weesoo benn point bu important mooy lan mooy prise en charge maladie mooy prise en charge médicale yaakaar naa tey enseignants bu ñu taxawee fii nii di jël tâche institution yooyu donc foo ñu jàppale ñu enseignants mun a faju seen njaboot mun a faju parce que avant tout d' la santé elle est primordiale donc on interpelle l' autorité pour mu jël ay dispositions ci côté boobu noonu surtout prise en charge médicale. prise en charge médicale jafe-jafe ya nag lool ba tax na sax wax ca teel mujj ga rafet coordonnateur SAES section Ussène Bobé ne faw nag ñu jébaane seen i jafe-jafe ngir ñu wàllu leen moom itamit ay kàddoom ak ndax gis ngeen ne université yëpp tey dañoo décréter ñaari fan yoo xam ne dañuy banque seeni loxo diggante tey ak suba du ñuy jàngale du ñu def aussi li ñuy wax tâche administrative ndax dañu nekk situation boo xam ne yaakaar naa ne buñ toogul wax kook nit ñi ñu xam li fi xew problème rek la ñuy indil ndax fi ñu war a jàngalee doyut li ñu jot a am mënut jël nombre yi ñu am maanaam boo xoolee limu ndongo yi ñu am saal yi ñu am mënu ko jël motut te dañu nekk ci ay jafe yoo xam ne manqué ay jàngalekat manqué lu ne administration bi ni muy doxee sooxe ñu ba fi mu ne nii dañu toll ci point boo xam ne bu ñu taxawut fi ñu ñu woote tey woote ne dañoo war a taxaw tamit ay étudiants étudiants janvier te ñun li ñu yor sax mënuñoo dem ñu ngeeg ñeenti junni nangam di xaar junni wala nangam fuñ koy dugal suñ ñeenti junni yi rek xamuñ fu mu jëm sonn nañu tàyyi nañu dañuy woote daal nit ñi xam ci lu ñuy dund mu nekkoon ay kàddu yi euh, docteur El Omar Ndaw euh, ñeneen nag ñu am jafe-jafe rek bay ak ji Ndakaaru mooy waa Casamance rawatina waa Goudomp euh, ñoom nag doxuñu ñaxtu daal la ñu def rek ngir ak ji ba palais ndimbal ak jàppandal sukkandikoo ko naataange Boli Dabo ne ñoom loolu la ñu bëgg ca seen diwaan ba ay kàddoom Cheikh Babacar Dieng moo ko taataan. ñu jógee suñu mission bi nii Goudomp nar a dem Dakar ak tànk yéeg nii léegi nii kaw la depuis lundi bële passé tey leen am semaine ak ñaari fan ci yoon ni point départ bi sonn nañ loolu mais presque ay dix kilomètres quinze kilomètres dajee dugg Ziguinchor ñu fara dajee Souleymane Ndiaye kooku remercier ñu féliciter ñu lu ñu nekk ci yoon bi presque moo participé si loolu ak gendarme yi nekk ci yoon ak chef de village yi tamit moo tax ñu tey ñu. lu leen président de la République il faut ñu ko ndaxte première ñuy sol lu couleur Casa Sport bi lu ñuy jëlee final bi nekk champion du Sénégal ñuy féliciter président bi effort bu mu defoon si coupe du Sénégal bi. deux aussi ñuy jógee Goudomp ñuy ñaan président de la République ñuy yàgg a déglu de Goudomp ba tey gisuñu ko moo tax ñu porter volonté uniquement pour dem féliciter président de la non raison bi amul dara parce que boo am fekkul sa doole waajur rek amoo doole mel ni man Sakku Dieng depuis ma juddee aduna ma fekk sama ñaari waajur yi père et moo tax ma yaru Sédhiou mais lii ma sama neuf fois maay romb fii dem Dakar mus naa dem deux fois ñuy ma dakk buntu palais commissariat jël ma yóbbu ma si commissariat onze la ma bàyyi musuma si ba Ndiba Ndiaye wàllu sec yónni ma paas mu ne ma comme suba mooy bi ma dimbal ko dugg si oto ñëw fekkee ko loolu. mais bi yoon moom jafe-jafe bii yoon dañuy bëgg euh, ñu gisante ak président ndaxte Casamance yëpp ñoo ko soxla ndaxte boo seetee jàmm Casamance muy si bi jeunesse bi gis nañ ko te dund si mais moo tax man ma jëlee ko profondeur Casamance à pied nar a dem ba Dakar woon na président de la République jàmm bu mu waroon Casamance jàmm boobu mu ngi si mais jeunesse bi amuñu lu ñuy téye boo seetee chauffeur yi si yoon tamit amul luy defar foofu boo seetee autorité sax ñu ngi luwaat suuf Casamance fu ñuy liggéey sonn ñu ngi sonn bu baax sax man maa yor sama fonction boulanger mais bu ma demee même benn weer mënu ma yóbbu sama bopp parce que aw doole aw ma moyen Boli euh, ndaw ña nag sonn nañu loolu jigéen ña de suñu ca ginnaaw ak ak gestu ñuy sàkku ba kenn nag dootul demati biti Casamance ngir uti ji loo am Khady Sané di kenn ca doxkat yooyee la muy tawat ak Cheikh Babacar Dieng man maa ngi jógee Casamance dëkk bu ñu naan Goudomp ñu ngi dund daal lu métti parce que gisuñu lu ñuy jàpp Dakar dafa métti torop ndax da ngay liggéey loo liggéey yëpp da nga koy fayaat ci ay loyer sa lekk ñëwagul fay courant ñëwagul dara ñëwagul moo taxit ñuy ñaan président bi mu jàppale ñu ngir yàlla ak yonente bi gestu jigéen ñi Casamance ndax Casamance moom ñun jigéen ñi ak ndaw yi dañoo bëgg liggéey te jeunesse baa ngi foofu am ñu dara lu ñuy téye te bëgg nañ liggéey surtout man loolu moo tax ma topp sama nijaay bi nii ma ne ko damay dem ànd ak yéen parce que lu góor mun moom jigéen mun na ko waaw kon nag daf ñu war a bu baax ku topp nga doxee Dakar nga jëm bëri na ndax bëgg nañ lu bëri daal parce que tey Casamance am na lu bëri loo xam ne tey bu ñu amee ay usine nañ noppale ndax tey mango yi Casamance lay jógee indi ko Dakar orange yi Casamance lay jógee fruit yu bëri tey bu ñu utalee usine Casamance ñun dinañ liggéey foofu noonu nga xam ne dinañ toog du ñu yëg benn métti Casamance neex na trop waaye liggéey rek mooy problème bi surtout ndaw yi ñun man maa ngi nii dama ñàkk ndey ñàkk baay maa ngi juddu 98 mais amuñu liggéey dañuy bay Casamance di ñëw ba Dakar pour uti non non ma leen ci affaire yi moom parce que métti na trop Sané coono googee nag gone yu jigéen yi di jànkonteel ci ñàkk jàng ak yeneen bokk na nag ca xeexu programme bi di passage à l'échelle du New Deal lu ni mel sax di xalaatu nguur ak sunu gaal lépp nag am ci ndimbalal Enabel ab lël la ñu amal fii ci région bi ci teewaayu Cheikh Tidiane Sarr. lël bi ñu ngi ko jagleel wàllum doxalin jëm ci nu ñuy yaatalee yi ba ci gox yee goxaat yi soxal programme bi ñuy wax passage à l'échelle du New Deal New Deal boobu nag mooy lan soxna Kaolack pour euh, fekkisee CRD bi nga xamante ne organiser nañu ko pour euh, passage à l'échelle du New Deal mu nekk benn approche boo xamante ne ni état du Sénégal dafa jël engagement ne daf koy wasaare fépp ci gox-goxaan yi ndax ba ñu ko présenté dernière conférence internationale sur la population et le développement bi amoon Nairobi résultat yu baax yi nga xamante ne ni amoon nañu ko ci li ñu jublu woon ci phase pilote bi dañu ko atteindre. lu ñu war a atteindre te xeex ko mooy luy xale yi jigéen ñi di dund Dame Diouf mooy coordinatrice nationale du projet promotion des jeunes nekk ca ministère bi ñu dénk wàllum ndaw yi. mooy xeex lépp lu jëm ci ëmb bu teel maye xale bu teel ñàkk jàng ñàkk toog ci jigéen ñi nga xamante ne ci école yi mais également fexe ba xale yu jigéen ñi gëm seen bopp xam li ñu doon fonk seen ay valeur donc mu nekk ay ponk yoo xamante ne ci la expérience boobu sukkandiku. ci njeexitalu liggéey bi nu mel ak programme bi bëgg nañ ci taxawal lu tollook 500 clubs de jeunes filles yoo xam ne da leen di gën a jàppale soxal diwaan bi di Kaolack jaarale ko ci département bu Guinguinéo ba ci bu Nioro. Euh, te taxawu suñu ay centre conseil pour adolescents yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk dans les départements pour ñu installe ay club de jeunes filles dérouler ay activité de formation de prévention ci lépp lu jëm ci ëmb yu teel ci gàttal daal bu gënee néew bëgg nañu ñu am 500 club de de jeunes filles bu ñu amee juróomi téeméeru club de jeunes fii club bu nekk def maximum 25 à trente personnes donc dinañu am lim bu takku boo xamante ne ni ay jeunes filles leaders la ñuy doon yu mën di sensibiliser seen ay père seen ay nawle di waxtaan ak yom effet d'entraînement boobu lañ ci bëgg. ci biir waxtaan yi ñenn ñi proposé nañ tamit ñu xoolaat wàllum koppar yi na ko noonu tamit def ay plaidoyer jëmale ko ci ñi jiite goxee goxaat yi ngir ñu gën a jàpp ci programme bu lu mel. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ngeen di euh, wéy nag di fi taataanee xabaar yi ci kàllaamay ko ci yaatal ñu daal di àddu nag jëmee ci meneenum mbir at ya nag ma nga toll ci ñaar fukk Omar lay wuyoo maanaam daal mënul wax dafa lu moom nag mbiram càcc la ñu ne moo ko yóbbu woon ca kaso ba waaye gannaaw ba ñu ko féexalee àllarba jile weesu ay mbokkam gisante nañoo soxna Ndeye Fatou Cissé ne ndimbal la ñu cay sàkkoo ñun daal ku ñu ci dimbali ñu jël balaa kaa yu mel nii di amaat ndax moom amul fu mu wéeru Omar ab xale bu góor la daa am taxawaay ñuulul ku ku nii dafa xeereer bu weesoo li nga xam ne moom la ñu mën a jàpp ci jëmmam ay mbokki boppam ne caractère bu baax la yore donte handicap bi nga xam ne moom lay dundaalee ama muuma rek day kaf nii di ree liyul daal te oyof na itam kum gis rek jeex na wala xasee na ñàpp sax amul problème gisoo ñun sa dimanche bu ñu yóbbu woon lekk dañ naan dimbali leen ngeen ñëw jël buuma sonal nañu ñoom ñëpp ay xaritam lañ Omar nag kon maanaam caabi mi ngi ko féete woon ginnaaw daanaka lu ëpp weer mbirum jël alalu jàmbur euh, di la taxoon mu am lanteeg yoon. Euh. sama doom rakk la xam nga koñ ba mu dëkk paapa da koo defoon daal comme doom moo koy sangal ay xar di ko defaral boole na ko sax si waa koñ boobu kër yi mu dendal ñun ñëpp moo leen di boole di leen sangal xar nee na paa lu ma am mu jox ko léegi waa ji fekk na ko sa buntu kër ga mu ngi toog mu ne ko Omar man de jaay nañ ma xar léegi damaa bëgg nga ñëw jox ma xar mi munta wax xam nga bu fekkonte ne muus na tuuti sax dana mun a dem laaji paa bi waaye defu ko mu ne ko tëj nañ mu ne ko baal mu tonkom ne mu ko tonkomee dugal ko ci biir kër gi ne cëpp doomu paa si la yeewoo nag gannaaw ay dàq yu bare nag àtte mujjee am barki démb ci àllarba ji yaayam moo doon dimbali tribunal bi ngir mu mën a tontu ca laaj yéen ko doon laaj ngir càmbar ay mbiram ñun daal ku ñu ci dimbali ñu jël soxna si mag la kon ci yaayu Omar moom dañ ko doon jël si maçon yi muy dem di fa liggéeyi wala ñu jël ko ci lavage yi muy dem di raxas ay vélo yooyu waa mais maçon daal ñu teg ko ci loxo yi wóor. ñaari at yoo xam ne juróom benn weer ya lay tëdd di la ko doon yott waaye nag ca mujjantal ga àtteekat yi mujj ñu topp parquet bi ci réquisitoire am ci noonu nag gannaaw ba ñu dëggalee ni moo def li ñu koy toppee dañu ko dispensé de peine maanaam du benn daan bu mu àndal. ñu ngi leen ci remercier. tey nag ay mbokkam di sàkku beneen ndimbal. ci askan wi. balaa kaa yu mel ni ñëw di këppwaat ci kawam. maanaam fexe ba xale bu góor bi la di Omar am xëy di ca daan dooleem ah, ba du duggati nag ci lenn loo xam ni mën na ko yóbbuwaat ca prison ba. moom papaam dafa teel a gaañu bàyyi ko yaayam. yaa ji amul doole bu xëyee day liggéey guddi lay waaj kooku moom du mën a lijjanti ponk lu góor ndax fi ñu sax nii sax mënalatu ko dara. yaa ji xale la mooy bi ñu ko doon may jëkkër ji fekk ne kooku mag la yàgg kooku di jug di dimbale yaay léegi nag moom su defee nii daal moom day daal di xaw a doy waar. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM. 90.1. ci euh, juróom ñeen fukk yu tombal euh, benn daal di wax rek euh, jëmee ci leneen lu ñu leen junjoon seen ko njiit nag alaaji seeni sekk moo leen woolu woon ñoom artisan yi ci Kaolack yëpp waxtaan ak ñoom digal leen ngir ñu jàppal tànk Mouhamed Ndiaye Rahma ak Pape Mademba Biteye ndajem pootum biir nekk ma ñu doon amal la fa ruuseek Cheikh Tidiane Diagne. ci benn hôtel de la place la ñu woote woon ndege mi ci biir diwaanu Kaolack waaye nag mu gi salle de conférence bi ñu ko doon defee dafa fees ba yenn artisan yi sax yi ndax amuñu fu ñu toog muy tôlier tailleur menuisier métallique menuisier bois mécanicien ak képp koo xamante ne day yëngatu ci wàll secteur bi Alaaji Seyni Seck mi leen jiite ci biir chambre des métiers woowoon leen ngir ñu daal di soutenir candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar ci biir commune bi ak département bi moom njiitu chambre de métiers bu diwaanu Kaolack nag ci la amalee déclaration bile. yéen ñi nga xam ne yéen artisan wu région bi ni ko waxee rek Kaolack commune ak département moom la président choisir benn bi moom xam ngeen ko mooy mu euh, Ndiaye Rahma benn bi moo di Pape Demba Bitèye Alaaji Seyni Seck yëkkati kàddu yu ni mel ci ngi woon ci xew-xew bi man de su ma doon sa APR doonu ma ab politicien bokkuma benn bokk yaakaar xaw ma Modou Ndiaye Rahma du ma la kenn yow la gisuma waaye li ma xam ci moom ma xam ko ci moom gis ko ci liste liste boobu danaa ko voté di réitérer suñu engagement ci liste bi nga xam ne mooy liste benn bokk yaakaar fas ci yéene xeex fas ci yéene góorgóorlu am ci moom représentant xalifa général des Mourides ci diwaanu Kaolack nag ay kàddoom tëju ko mukk te boolewu ko ak mbiru ñaan waaye tamit ne am nañu yaakaar bu baax a baax ci candidat coalition Benno Bokk Yaakaar ci biir commune Kaolack allah gi seeni sekk. bu fekkee yàlla dimbali nañu ba li ñuy nas am niñ ko bëggee yaakaar naa ne jàngoro boobu dana ci am lu saafara bu baax kon yàlla na ko yàlla dogal kon ñun ñi ngi rafet njort bu baax sant nag bureau bi loolu firndeel nañ ko tey na leen wóor ne liñ mën dañ ko ci def suba ak ngoon guddi ak bëccëg xew-xew bi gannaaw artisan yi kàddu yi ñu yëkkati nag nee nañu fi ne jëfa ci topp waaye tamit jëf ji dinañu ko fësal ci diwaanu Kaolack moo xam ci bépp fànn ba ñu jël département bi ak commune bi daal di koy teg ci loxo yi waa coalition Benno Bokk Yaakaar jaajëf Cheikh Tidiane Diagne vice président chambre de métier bu Kaolack ba nag ànd na eh, ca Mouhamed Ndiaye Rahma ma ñu leen joxoñ ne matee na ko eh, sàkku ci artisan yi ñu yeewu waaye tamit woo kilifa yi ngir Diop lay wuyoo mi ngi ci micro Cheikh Tidiane Diagne. yàlla dimbale nañu ñun artisans yi Kaolack yëpp nekk nañ benn bopp tey jii ñëw toog li ñu soxal tey jii mooy département Kaolack commune Kaolack ñu teg commune Kaolack ci loxol Mamadou Ndiaye Rahma li ñu soxal tey jii mooy ñu jël département Kaolack teg ko ci loxol Pape Demba bi tey loolu mooy ndigal li nga xam ne moom la ñu jox amatuñu benn soxla pour suñu bopp amatuñu benn soxla pour fenn lenn nag am na moon Ndiaye ma mi ñu joxoñ nekk na meer ñaar fukki at désigné wuñ te su ma ko waxee am ñu bari ñu ko xam ndax administré naa ci biir mairie bii xam naa lan mooy rôlu maire lan la maire war a def ci dëkkam moon Ndiaye Rahma jigéen a askan wi ñaar fukki at te désigné ko ne ko maire nga rôlu maire nag mooy jigee askan wi defarub koy population bi la nga liggéey ci sa liggéeyu bopp na nga koy amee yaa ko xam nga di ko jox nit ñi te doo ci xaar kenn kon buñ ko désigné noppal nañ alaaji seeni sek parce que désigné nañ koo xam ne mat nañ ko désigné doon nañ doon jaaxle ñu désigné koo xamante ni neexul alaaji seeni sek te ñun fu mu ñu joxoñ fa la aw yàlla def nag ñu joxoñ ñoo xamante ni moom ci boppam d'accord na ci ak waa këram kon ñu ngi wax artisan yi di leen wax ne leen alaaji seeni sek bëgg-bëggam tey ak yéeneem ak li mu soxla mooy ñun ñëpp ñu nekk benn bopp àndandoo wut lii muy commune Kaolack ak rek la tudd yàlla mooy joxe sant am wala ña yàlla nañu yàlla jox bépp artisan bu nekk ci li li ñuy bëgg mooy artisan boobu représenté ji artisan yi bu ci yàlla àndee fa mu daan jaar dana fa jaar bu soobee yàlla yonente bi am nañ fit bi am nañ fulla bi am nañ fayda bi artisan doomu ñebe la benn doom ngay jël ji mu sax law ay ñebe ñebe ne ci nga jël benn xolli ko muy ay doomi doom ma bëgg yéen politiciens yi yéen responsable yi yéen ñi ñu àndal ngeen bàyyi xel artisan yi tey jii danañ naan mënuñoo si boor ku ñu joxul suñu gëdd duñ ko xam suñu ñàkk la maa ngi bëgg ngeen bàyyi xel ci loolu muy commune muy département Kaolack neex na neexaay boo xamante ni ku fi ñëw luñ la jox nga laajaat leneen Kaolack nag dama bëgg ngeen am seen fulla ak seen fayda taxaw xam ni Kaolack doomu Kaolack yi ñoo koy moom am na ñoo xam dañ leen a jëli même buñ fi jëlee dañ leen jëli woon indi ñi nga xam ne dañ fee nekk nag démb ak barki démb di fi tekki démb ak barki démb xam leen fi ngeen di teg seen tànkam Sidi euh, Diop ñette woon ca ndaje ma nag bokk na ca maître Nafissatou euh, Diop euh, Cissé may xam leen ne nag Mouhamed Ndiaye Rahma kenn ëpp ko yéene defar Kaolack am programme euh, kon itamit nag bu leen diggee ñoom artisan yi war nañu koo gëm euh, kaddu yamu rotal ak Cheikh Tidiane Diagne. papa tey da nga def lu rëy macha allah ndax ñëpp xam nañ ne artisan bu nekk mbooloo moo nekk ci gannaawam ay liggéeykat ngeen di sant tamit Sidi Diop mii nga xam ne moom tamit ni mu Ndiaye mel la mel ci man daanaka ñoo bokk ndeeg baay ndax ku jël doom may la kooku mënoo ko fay mun Ndiaye nag dañ koy gunge ànd ak moom te duñ ko jey ndax yàlla teral nañu bu yàgg a yàgg ñu koy di ko gërëm kon nag euh, su leen ne dina ndax fi mu nekk nii mu ngi def benn programme boo xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy jox ay idée maire boo xam ne day jëriñoo Kaolack du am maire buy jëriñ Kaolack mooy am te comme ni niñ leen wax rek ëpp ñu expérience yàgg nañoo ak moom xam nañ jikkoom man de dama tàmm ne mun Ndiaye li mun ci terrain bi man mënuma ko wax dëgg yàlla mun Ndiaye li mun ci askan bi man mënuma ko lu mat ñetti weer a ngi nii mun Ndiaye bàyyi nag Dakar mu ngi toog Kaolack di liggéey di liggéey mun Ndiaye chaque weekend ku ko xam depuis des années mu ngi Kaolack di béy waaram Ndiaye la sant gaa moom wante ñeme na poosam ñeme na taam kon nag mën nañ am yaakaar ci moom di gërëm nag suñu kilifa président de la république parce que ñun fii lañ bëggoon mu xool te fi mu xool ni ñu tegal ñun sant nañ ci gërëm nañ ko ci loolu ndax ñun ñooñu lañ bëggoon ñu tegal ñu leen man daal mën naa leen garantir ne ngeen jàppale soo leen ñu jàppalee moon njaay mi ñun kenn ci ñun duñ ko bàyyi moon njaay li ma leen ndax dama leen koy répété moon njaay du jëriñoo Kaolack day jëriñ Kaolack yàlla fi mu nekk nag liggéey bee fi des en tout cas ñun tey moom kontaan nañ kontaan boo xam ne amul àpp ndax artisan yi ñooy suñu lépp artisan yi ñëw ànd ak ñun liggéey macha allah tey moom kontaan nañ macha allah papa yal na la fi yàlla bàyyi. maître euh, Nafissatou Diop euh, Cissé noonu nag nga ko rafetloo noonu itamit la ko Mouhamed Ndiaye Rahma euh, defee wax na fa nag ay mébétam xamal leen ne bu faloo nag dina jëf lu ñëpp di teg taxaw leen ñoom ñooñee ay kàddoom ak Cheikh ti Diagne. ñu ngi wax ne sa njaboot gii nga xam ne yaa bokk ñoom liggéey dégg nañ kàddu yi ngeen fi wax. waaye yaakaar naa jàngoroy Kaolack wala waa Kaolack. tolluñ fuñ ñu koy waxee xam nañ ko bu baax na seen xel dal ci loolu te yàlla dogal na itam li ma jàpp mooy insha allah ñun ñii ànd buñ jotee mairie buñ deful Kaolack dara gëm leen yàlla na Kaolack du kenn du fi def dara ça la vérité parce que pas-pas bi ak gëm-gëm bi ak xam giñ xam Kaolack ak jàngoro yi fi nekk niñ ko xamee ak ni président pé bëtam di xool Kaolack ak nar-nar yi fi am dama ne bu ñu yàlla dimbalee buñ ko jotee bu ñu defut nañ gëm yàlla ca xam ne kaw la duutu jàpp loolu mooy dëkk parce que xam nga mbir mi li ci ëpp solo mooy pas-pas pas-pas bu amul boo yeggee itam doo def kaw la toll tey bari na yoo xam ne war nañ koo mën a def ca manu na kaw la dëkk bu yàlla barkeel la kaw la dëkk bu rëy la ci Sénégal kaw la doo tudd mukk Sénégal ca doo ko tudd kon ñun ñi fi nekk ngeen nampatal ñu ci jom nampatal ñu ci liggéey nampatal ñu ci bëgg lu ñu ngi dalal seen xel ñoom incha allah ba seen mbébét yi daañu taxaw ba li nga xam ne jàpp nañ ne jàngoroy Kaolack la damay faral di wax toujours ma ne ñun amuñ problème mu yegg ci chef de l' état na ko jàngoro jii dafa am Kaolack kay faj parce que damay wax toujours ma ne président xam ne ne duñ toog ak moom mukk di ko wax suñu waxi bopp yàlla dimbale na ci loolu duñ toog ak moom mukk di ko wax loo xam ne du njëriñu askan bi yàlla dimbale na ci loolu ci ab équipe ci boo xam ne ku ne ci ñun mën ngaa yegg ci président wax ko loo a dalal seen xel bu baax ci ne li nekk seen ittee muy jàngaro yi nga xam na jàpp ngeen ne luñ war a faj la bu ñu yàlla mayee sutura insha allah yéen seen bopp xam nga mag bëti neen la nañ ñaan yàlla yegg ca yéenay gisal seen bopp parce que suñ ndam du dem rek dem nañ ca mairie ba déedéet damaa jàpp na am na def yu nekk suñ kanam yoo xam ne kaw la ci boppam sax moo wartal nangooti jox kenn mairie bi def un an deux ans ca mbir mi du ay wax ay jëf la olof yi nag dañuy wax na ku njëli di jot nañ bàyyi waxkat yi ñu wax ñu fexee dox jëm ci li nga xam ne moom la président di xaar ci ñun waaye fexe jëm tamit di kaw la di xaar ci ñun. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. ñu wëy nag ba tey ci jukkim xabaar yi ak it nag lu ñu leen digoon rek ci ponk yi fika bi nag ak jotaay ya fay am ma ngay wëy ba léegi nii rek ab waxtaan bu am solo amoon na fa ak waa APROSI eh, ci nag Sénégal ak projet yi mu am secteur privé beeg public bi eh, nees mën a lëngoo bëgg na suqali wàllum industrie rawatina fii ci diwaan bi Djib Momar Ba directeur eh, général APROSI mi ngi ci yéen ay leeral ci micro Cheikh Babacar Dieng. dañ fi ñëwaat comme ni ñu daan ñëwee rek de commerce nag moo koy organiser fii mooy sixième édition édition yëpp ñëw nañ ci participer bu baax a baax tey dañ ñëwati encore ci benn thème thème bu am importance moom mooy nan la ñuy mën a lëkkaloo participation publique ak privée ci ay projet ñoom pour mën a yokk industrialisation Sénégal industrialisation boo xam ne ñëpp dinañ ci gis seen bopp moom mooy li ñuy wax durable donc ci loolu gis nañ tey nit ñu takku ñëw intéressé wu ci thème boobu thème boobu aussi ñun niñ ko doxalee mooy wane nañ Sénégal fi mu ci PAP 2 projet mi ak lim réalisé wane nañ opportunité yi nga xam ne am na Sénégal gàncax bi fi am ci agriculture bi ci projet yi nga xam ne am nañ ko ci agropole yi ci industrie yi mais également ci potentiel yi am ci mine ci phosphate yi ci or bi ak yooyu yëpp ak sel bi nekk fii wane nañ ne en tout cas am nañ potentiel boo xam ne mën nañ développer zone bi mën a développer Sénégal mën a développer industrie boo xam ne ñëpp dinañ ci gis seen bopp xale yi dinañ ci am ay xëy euh, a manqué rek tuuti yenn réforme yi te état bi mu ngi ciy dox bu baax a baax wane nañ aussi ne facteur de production muy courant ak ñu ngi ciy gën a stabiliser di ci gën a taxaw wane nañ ne aussi Sénégal am na ay avantage yu mag d' abord réew mu calme la réew moo xam ne position yi baax na te defar nañ fii avec la politique du président Macky Sall defar nañ fii politique de développement d' infrastructure yu am importance am na ay autoroute am nañ vraiment ay infrastructure de taille ñu ngi def itam ay zone économique spéciale ay parc industriel yoo xam ne dañu ngi gën a ak également production locale loolu wane nañ ko mais wax nañ ne ici Saloum agropole centre nga xam ne ñu ngi koy développé na ci privé bi gën a dugg parce que public bi moom am na financement bouclé nañ ko ba pare mais financement public moom moo ci des moo taxoon ñu doon woote fii pour que nit ñi gën a xool loolu xam ne muy xorom si muy gerte gi muy lépp mën nañ ci liggéey bu baax a baax ci biir agropole yi dina créer emploi dina fixer nit ñi dina tax euh, naataange bi am fi loolu ñun ñoo ko war a tabax. baax mu ñeel wàllum suqaliku euh, koppar ya koy financé nag jaratul jéggaan yi war nañoo nas ay pexe wekk lépp ci politique gu réew mi ay kàddoom moom itamit ba tey ak Cheikh Babacar Dieng. c'est vrai que lebi xaalis ci bitim réew nit ñi ñu ngi koy def am na solo aussi wante jël xaalis bi nga xam ne moo nekk ci fii nii ñi nga xam ne ñoom ñooy borom alal yi au ñu koy tabax rek wala ñu koy importer ñu jël xaalis bi boole ko di ko créer de la richesse di def usine wala ñuy def agriculture boo xam ne dinañ ko mën a valoriser loolu mooy mën a jox xëy a yóbbu suñu réew kanam wax nañ fii aussi que ne bon nañ a xool ne produire intérieur dañ ko war a a jox gëdd mais aussi consommer local dañ ko war a jox gëdd loolu appelé nañ pour importation yi ñu wàññi ko am na nag ay doléance président bu wax na ko nee pour industrie mën a dox il faut que ñu arrêté importation yi waxoon naa fi ne exemple ne man fëgg jaay sax par exemple dafay ñëw tax suñ tailleur duñ liggéey exemple yu mel noonu loolu la wax wax a baax a a production locale et valorisation ba projet yooyu ma wax leen muy ay agropologue yooyu loolu moo leen tax a jóg loolu daal moo taxoon may kontaan bu a baax di remercier le président Mboup avec son équipe ci li nga xam ne ñoom ñu ngi constant di ko organiser lii lu baax la ci réew parce que day liñ fi dégg gis fi ay nit ñoo xam ne ñu takku lañ mais également ñu ñëw indi seen i problème ba pare li ñuy wax ñu intéressé leen ñu toog posé ñu ay questions a a waxee di leen gërëm di leen sant bu baax a baax. de commerce bu Kaolack boobee nag muy njukkal moom la mu jàpp rek ni ay pexe mooy ne daal dañoo war a dakkal lépp luy aju ci wàllum jëggaan yi bu ñu bëggee euh, suqali industrie bi lu ko jiitu nag mu laaj ak ak tàggatu ak it état gunge leen président Serigne Mboup ak Cheikh Babacar Dieng. tey dafa nekk lu am solo mais surtout ki ko yor nekk doomu saalum waaye loolu taxul sax mu ñëw Kaolack mu ñëw fii ndax nit la boo xam ne ñëpp d'accord nañ ne mi ngi taxaw di jàppale industrie di jàppale di def la promotion. léegi nag tey dañu ñëw li ci ëpp solo mooy nan lañ mën a jàppale ñu def infrastructure industrielle yi ànd ko ak chambre de commerce yi ko ak collectivité locale yi parce que industrie rek moo mën a booster ci loolu nag tamit ci laa ko wax doléance boo xam ne nii dañ ko war a wax ñëpp dégg ko Sénégal dañuy rapproché de léegi opérateur économique yi ne pousse sax defaruñ ko wala nangam defaruñ ko affaire bi du foofu affaire fan nekk mooy état yëpp buñ industrie industrie bi dina ëpp doole mais loolu nag day def accompagnement boo xam ne nii infrastructure logistique ak tamit ay formation et en temps may wax Sénégal jàppale ko mu mën am ouverture ci marché yi comme ni ko yeneen réew yi di def bu ñu ko defee loolu rek industrie bi dafa am lu koy accompagner dañoo war a fexe ba produit sénégalais bi gën yomb produit étranger produit sénégalais bi gën baax produit étranger bi mais tant que ngi toog naan nañ xaar produit dawee yow dawal suñ dawee ba ci kanam yaakaar naa suñ ñun ñaar ñëpp na yéen yem et je pense que boobu la Sénégal defagul te loolu buñ ko defee rek incha allah bitim réew. ñaareelu euh, pàccu euh, xibaar yi ci bitim réew la ñu jëm Cheikh Tidiane Sarr ana foo koy dooree. ca Libye lañ koy dooree wax ci xeeroo ngaayoo bi nga xam ne nag euh, mu ngi fa am fës fa lool jaarale ko ci lépp lu jëm ci tension politique ya ak élection yi nga xam ne sax ñu ngi ko fay waaj bu baax baax ci waxtu boobu ñu gis ne nag ñu ngi amal ci àdduna wërngël këpp conférence internationale bu soxal wàllum jàmm gi foofu la ca France ñu gis ne premier ministre Abdelhamid Bayda daal dafa d'accord ak benn yoon ci loi électorale boobu nga xam ne nag samp nañ ko fa comme sax ñeneen ñi nga xam ne nag ñu ngi ca langue politique yooyu ñu leen wooye ay islamistes ak ay milices ñoom daal ragal nañ jort ne buñ moytuwul sax élection du am foofu la ca libi ndax xiro ŋaayoo bi politique ba jafe-jafe yi nga xam ne nag war naa leer laata ñuy dem ci élection yi muy code électoral ba ak yu nu mel waxtaan yi di wéy ci waxtu boobu ñu gis ne tamit ña ngay amal ca Europe euh, sommet boobu nga xam ne moo takkee chef d'état yi soxal wàllum jàmm gi yaakaar ne jàmm dina sax ci àdduna wërngal internationale. ci Afrique du Sud Frédéric de Klerk nga xam ne moom jiitu woon na fa réew ma nag jamono ji moo génn àdduna nit ñi di ko jàppee ne nag moom ci boppam daanaka mën nañ wax ne moo indi démocratie ba ca réew ma Frédéric de Klerk doon njiitalu réew boo xam ne ci Afrique du Sud mën nañ wax ne nit ku weex la moom nag génn àdduna ni ki démb ca këram sax ci ab feebar boo xam ne moo ko daaneloon daal ñu koy wax cancer ay atam tolloon ci juróom-ñett fukk ak juróom. Diom nekkoon ku ñu ràññeeku ca Afrique di Sud li fësoon lool ca xeex bi ñu daan xeex wàllum apartheid foofu la ca réew ma gannaaw bi nga xam ne sax jotoon na caa ràññeeku beneen ci naataangoom di ab noir ñu ko doon wax Nelson Mandela. actualité. internationale. ci Afghanistan benn daje mën nañ ko wax sax benn réunion moo doxoon ci diggante ñi nga xam ne nag euh, ñooy émissaires yi ay ndaw yoo xam ne nag dañ leen yónni ñu jógee ca États-Unis ba ca Russie daal ndawal États-Unis boobu mu ngi tudd Thomas West daal euh, moom jot naa dajeeg nag euh, foofule ca Pakistan ministre taliban bi ñu dénk wàllum bitim réew Amir Khan Mutahi ak ay diplomates yoo xam ne nag ñu ngi dëkk ca réew mi ñu wax Chine ak Russie message bu diplomate yi bëgg jàllale jaarale ko ci islam Wade lenn rek la moo di communauté internationale bi ñoom ñëpp maanaam États-Unis Angleterre France ak yeneen ci ay réew ñoom ñëpp daal jamono ji ba ci Russie li ñu war a def moo di gën a jàppalewaat Afghanistan ci wàllum koppar dimbale ko tamit ba nga xam ne danañ mën a ñoŋalaat koom-koom bi waaye tamit taxaw tem bañ leen seetaan si wàllum kaaraange ga Afghanistan ak fitna yi nga xam ne moo fa am gannaaw bi nga xam ne taliban yi nangu nañ presque réew ma. bàkk baa ngoog xabaaru euh, tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay tey nuyu mbokki auditeurs yi di leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom di leen ziar ci àjjuma ji xibaaru tàggat jaram yi dañu koy doore ak juróomeelu bëccëg jëm ci éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 démb Ouganda ak Kenya ku nekk benn bal nga dugal sa morom Éthiopie ak gana ku nekk benn bal nga dugal sa morom Tanzanie ñàkk ci kanamu RD Congo ñetti bal ci dara benn am ndam ci kanamu Madagascar ñaari bal ci dara Rwanda ñàkk ci kanamu Mali ñetti bal ci dara Congo ak Namibie benn ak benn la ñu def Togo ak Sénégal benn ak benn la ñu def Afrique du Sud daan Zimbabwe benn bal ci dara tey nag bu benn waxtu jotee Djibouti mooy dalal Algérie Burkina Faso di dalal Niger Gabon di laaleeg Libye bu ñeenti waxtu jotee Guinée di laaleeg Guinée Bissau Angola di laaleeg Égypte bu juróom-ñaari waxtu jotee Soudan di laale ak réewu Maroc bu juróom-ñaari waxtu jotee juróom-ñeenteelu bëccëg zone Europe Azerbaïdjan dafa ñàkk ci kanamu Luxembourg benn bal ci ñett Géorgie daan ñaari bal ci dara Russie lapp-lapp yi métti benn bal ci dara dara Armenie ñàkk-ñàkk bu métti ci kanamu Macédoine bu Nord juróomi bal ci dara tey nag bu juróom-ñaari waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili juróom Italie mooy laa lekk Suisse Angleterre di laa lekk Albanie Andorre di laa lekk Pologne Danemark di laa lekk Île Faroé Autriche di laa lekk Israël Moldavie di laa lekk Écosse Irlande du Nord di laa lekk ak Lituanie play off championnat ci góor ci jigéen nag dina door tey nag ca Thiès ca terrain ak ISEG bu juróomi waxtu jotee bu dee nag lu soxal góor ñi nag ISEG mooy laaleeg police Fuladu di laale ak Salut volleyball club bu dee lu soxal poule B yi nag semaine bi di ñëw ñoom la ñuy laale foofu ca stade Lat Dior bu Thiès jeexalee ko ak basketball xam ngeen ne Amane Niang njiitu FIBA monde nag moom mi ngi ci Sénégal tey jii sax la war a ñibbi di ab tukki nemmeeku bu amal fii ci sunu réew démb nag joriñ gi ñu dénk wàllum tàggat yaram di Matar Ba moo ko dalal waxtaanee na nag li nga xam te ni moo war a soxali lii di basket Matar Ba ak Amad na ci micro rajo tout le plaisir qu'on a de recevoir notre cher ami. wax xanaa di fësal suñu mbégte rek ci dalal gi ñu dalal Amad Niang wane tamit suñu fierté bi ñu am fas yéene ko gunge ci mission bi mu am du mission bu yomb ndax jiite FIBA ci àdduna bi yëpp du lu ndaw wax ci turu sportif yëpp ak africain yi jiite FIBA monde nag xam ngeen ne du lu yomb waaye moom mii mën na ko ndax teeyam ak dalam. ndax gis ngeen ko boobu ba léegi ci li mu nekk jàpp njàmburam di def li ko war def leen nank nag tey Afrique nekkatul ci ginnaaw loolu jeex na suñuy ndaw ñi ngi def li leen war li ñuy manqué ci suñu équipe bi nag fii ci Afrique mooy que ni benn xaaj bi ay professionnels lañuy doon beneen bi nag dañuy dañuy desee màgg te loolu li ñu war a liggéey la góorgóorlu ci ba ñoom tamit ñu dem ci niveau bi ñuy toll ndax bu ñu amee ndaw yuy góorgóorlu ci NBA ak yeneen championnat yi loolu dina tax ñu mën a am équilibre jëm ci compétition mondiale yi. forcément il va y gannaaw bu la ñaanalee kandaa yu jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi juma li ci yéene kaay yi kay L'Obs, Le Soleil, Sud lii gën a fës ci yéene kay yeeg El Hadji Seydina Omar Cissé euh, haalaan bikum xàttekat ya fa ñoo gàgganti fa ñoo jubbante préfet ak sous préfet yi nga xamante ne fa ñoo dàqoon lissi ñoom Ousmane Sonko yeewi askan wi ci jongante gox goxaat yi te mooy yéen a kaay ñu ko xamal info yéen kaay feelu ko ne ñoom Ousmane Sonko am nañ dëgg ci kaw préfet yi ak sous préfet yi bañ leen kalaamee na ci ëtt àttekaay ba xàttekat ya ne waa yeewi askan wi ñoom usmaan Sonko yéen a nekk ci dëgg moo xam diwaanu maatam diwaanu Ndar Golf Sud Mbour ak sous préfet fa ñoo mel ni ñuñ xàjji seen kaab tubaab ba talaata tëf naka noonu golf sud ak saam Notaire am nañ fa dëgg ba ci sax Adama fay moom it war nañ ko jox dëggam mu mën a bokk yéene kaay bi ne lii nag wax dëgg yàlla fay jox dëgg ñi nga xam ne fañ doon wax ne préfet yi ak sous préfet yi am na ci ñoo xam ne maandu wuñ fa ñoo far ak makki ak ñim àndal ba tax tëddeewuñ jaaxaanaay bëggoon a xañ ku jege ñu bokk te loolu du yoon le quotidien yéene kaay dëggal ko na ko diiwaanu ndar xattekat ba nee na waa askan wa seen ba baax na mën nañoo bokk ak diiwaanu mbuur Thiès ak yeneen diiwaan léeg si ko yéene kaay ko waa yeewi askan wi ñoom Ousmane Sonko kay tey ñi ngi am ndam seen ndam li di gën di yokk waaye Bougane Gueye Dany moom fori na neew de ëtt attekaay ba Dakar fañ koo bañal na ko yow mënoo bokk mënu leen ba du ma rek faay dem cour suprême ba sédee yaawoo fu mu laaj danaa fa kalaame waaye nag diiwaanu Kédougou ëtt attekaay ba joxe gu dogalu attem ba fii ak altine lañ koy xaar ci la ñu xam ndax giraas yi ma fa teewal ñoom Ousmane Sonko yeewi askan wi dana bokkam du bokk turbine yéen kaay na waaye yeewi askan fi mu toll ña ngay ku naan leen def leen ndànk ñun a mooy élection du fi am ñoom préfet ak sous préfet nee na nag li gënoon a rafet moo ñu laaj leen lañ def fan lañ ko teg vox populi na ko yéen kay fi nii xamatu lu ngeen di wax li àttekat yi def mooy ne waa yeewi askan wi fayeeku nañ ci seen kaw mujj nañoo am dëgg ci yéen loolu nag baaxut fa ñaaw ci gis-gis de ay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne ñi makki tànn ci tëdd liste élection locale yii am na ca waa APR responsable yoo xam ne fa ñoo fipp la leen makki tànn tax na demal seen bopp wala ñuy wax kàddu yi ñaaw exclusif yi ne kaay ne ñii nag fa mel ni fa ñoo yab Macky Sall wala fañ leen lii ñoom faale wuñ ko aw seen yoonu bopp xoolal ku mel ni Mame Mbaye Niang la def ak Mamour Diallo Mame Boye Diao Diène Farba Sarr Talla Sylla Mary Teuw Niane Ablaye Baldé ak yeneen responsable yoo xam ne Macky defal na leen lu ne te ba léegi ñu ngi gundaandaat ñu xëy di fippu ci kanam Macky loolu rafet na te si jamono jooju am na responsable yoo xam ne Macky fale na kajji football maanaam jiitalu leen tedd liste te terewut am nañ leen naqari Mbaw Mimi Touré moom xamul dara te mi ngi ne cell Doudou Ka fori na new Seydou Gueye Sidiki Kaba ñoom ñëpp te terewul fañ ko muñ yéen a kaay bi mel ni ku naan kon de ñee moom na leen wóor ne Macky dana rëq seen digg l'évidence a kaay na ko hee defal ndànk de gis nga Mimi Touré moom ngay wax ak Aly Ngouille Ndiaye Maître Oumar Youm Matar Cissé foogu leen na bombe à la waxtu nekk mën nañoo kalaate de te su boobaa du baax ci Macky li baaxut ci Yankhoba Diattara kay mi nga xam bërki démb la fi nekkoon doon xas Macky Sall moom Yankhoba Diattara wax ju ñaaw ju ne wax na ko Macky keroog ñu gis ko muy daal ci ñoom Sonko di taggal Macky sàll ay maamam waa kii kum yàpp dara lañ gëmul seen bopp rek lañ ne ba tax Babacar nee na poste ministre bi ko Macky jox fa koo dofloo moo tax mu fuuy njaatigéem nag Idrissa sekk moom it am na jafe-jafe de gaa yaa ngi koy critiquer di ñaawlu doxalinam nam yoree conseil économique social ah, yaaw seetal Idrissa daal fa jël ay nit ñu bëri ñu fay liggéeyee ci jëlin boo xam ne ñooñu amuñ fa benn njëriñ xanaa lekk suñ ñu ne déetewaay seen ndaje yi ci ay vidéo téléphone yi ci lañ koy def naan ñoo yaay ñu liggéey loolu mooy lan critique yéen a kaay di ñu xamal ne kilifa diine yi ñoom dox jàmm bi ñu doon def diggante nguur gee ku jégi fañ koo saboote te kenn saboté ko lu may ñoom politiciens yooyu ah bu ñu leen waxee duñ dégg bu yàggee kilifa yi fa ñuy tàyyi noppi di leen seetaan ki bañ a seetaan Barthélémy Dias mu def erreur njuumte du kenn ku may maître Malick Sall jëwriñ ji ah, yow seetal nee na Barthélémy Dias faa koy digal benn fan ci weeru décembre bi ko yoon woolu na dem moo gën ci moom de ndax même su demut tamit yoon fay def liggéeyam te du am ku ko défendar te su naa fori new ko xamal maire bu Biscuiterie yi Djibril Wade mel ni ku naan ko maag yow bokkuñ xalaat de gis nga xattee Barthélemy Dias bii fañ koo war a randal ba élection gox goxaat yi weesu su ko defee jàmm na ñooy waaye ku nekk candidat war a def campagne nga naan ko kaay wuy yoon ay farandorom ànd ak moom fit jóg ci réew mi lu ko fi jar li baaxul waay li baax nag ci réewum Sénégal mooy lijjanti ak a xayma budget 2022 xaalis bi war a doxal réew mi Macky Sall nag sëgg na ba AIBD jafe-jafe yam andi ci gàllankoor mbaaw ba nga xam ne fa nar a gent le soleil yéene kaay di ñu xamal ne Macky Sall njiiti réew mi ndajeem jàmm ma tubaabee doon amal ba mu fa demee jël kàddu nee na leen adduna bi yëpp ñoo am intérêt ci ñun réewu Afrique yi ñu suqaliku yéen tubaab yi ndimbal gi ngeen ñuy jox nekkul solution biran yaaya wan ci vox populi mel ni ku naan ko Macky président li nga wax dëgg la de waaye solution bi dëgg mooy doomu Afrique yi liggéey Afrique waaye li ma jaaxal sa réew mi nga jiite Sénégal tubaab yi ñoo fi buur di bummi projet bu ñu àndi nga jox du ngeen ñu faale mënuñoo gis sax dooleel Eiffage xamal ne France ngay dooleel te loolu am ci réew mi de neexut a dégg nag waaye loolay dëgg tàggat yaram Sénégal fa rëcc Togo fa koo bëggoon a mbuqi démb waaye ca cappaandaw jongante ba ci la jàlloo égalisé laa si ne kaay di ñu xamal ñetti soxna hay sénégalais yu xam ay njaboot ñoom la ñu faat ci réewum Espagne allah liyeeka mitti te yéeme sursu aana ko leneen lu yéeme maa leen koy wax benn jàngalekat daal tête de liste la moom la waa yeewi bu Jawara ngir mu nekk seen maire waaye bés bi mu la waaj a la fañ tànk ya dee mënta dox ñu dem kër docteur ñu xool ba sonn rajo ya na ñun daal gisuñ dara ba tax waaja fi mu toll nii manga nga ca pajum olof ndax fa jàppu jàpp ne fañ koo liggéey ndax élection locale yi ku yeboo moytu de ña waroon a moytu nag ba bañ a def jëf ju ñaaw ju àdduna bi yëpp di wax mooy benn imaam ak noddu katam a yow seetal turbine yéene kaay moo ñu xamal ne daal imaam ba mook noddu katam ba mu azinam ba fañ doon raak xeex bu ko gën a mitti imaam ba jàpp noddukat ba di ko mbuqi di ko mbuqi fa koo dóor ba damm loxo ba tànk ya ay yëf yaa Kolda waa ma lan moo nekk ca jiite wala noddu xanaa du yàlla rek de ndax bu yàlla rek taxee fenn fi jarul ngeen fay yegg bu ci mbiru àdduna duggee nag su boobaa nag man xamatuma ca dara lii ci eh, yéenekaay yi Shukran El Hadji Oumar ponk boobee sax nag mooy ndar képp xabaar yi ci rajo bi waaye xabaar yi nag day wéy jamono bu ne ci 3w point radio alfayda point net jaajëfal nañu leen bu baax a baax ci déglu bi jaajëfal El Hadji Libaas Mbay ci wàllum xarale gi ak it waa rédaction ci njàppandal gi mbokk yi ñaanal nañu leen di ko sàkku mucc Euh, tawféex ak taysiir jàngeen jëfati Le journal Ngoné Ndiaye Reine